asalaamaaleykum askan bi seetaan Star TV dal leen si kër gi su ko defee ñu ànd ak yéen ci xibaaru bés bi ngeen ànd ak seen doomu ne Omar Tunkara ci dinañ dem seeti ji waa Triyes jot na permit bi nga xam ne nag jamono ji ñu ko doon sàkku ci nguur gi na fu mu toll nii wane leen ne ne ne permit boobu nag duñ ko mun a jot ndax inspecteur général of police mi nga xam ne moom moo jiite police si réew mi wan na gars yi ne daal permit boobu duñ ko mun jot maanaam si gàttal mën nañoo génn ci dimanche bi si mbedd yi pour dem ñaxtu bopp xibaar yi dinañ dem seeti ji Sénégal naka seen transport union bi am na jàmmaarloo bi nga xam ne am nañ ko ak boss driver yu Gambia nga xam ne nag ñu doon jublu dem foofu la ca Dakar Sénégal euh, ci yoon boobu nag war na ne am na boss boo xam ne nag jot nañ koy jam am kenn si client yi ki nga xam ne nag dafa jëlee gaañu gaañu boss bi nag dañ ko mujjee delluwaat fii ci bureau Gambia ben tey mbokk yi dinañ dem seeti ji GMC Gambia Moral Congress ñoom nag ñoom ñoo daal di dàqalu kàddi nga xam ne nag moom ki di mbakke wax na ko ne moom kilifa la nag si i parti bi ginnaaw bi nga xam ne nag def ne eh, kilifa la si parti bi waaye nag tekki na am na mbal tànkam te léegi dem na ànd ak président Adama Barrow si parti bi di NPP waaye nag kàddu yee nag waa GMC dañ koo dàqal wane daal moom nekkul dara waaye tamit jarul dara si di parti booba mbokk yi si xibaaru biti réew yi dinañ dem seeti ji réew li di Guinée Guinée nag seen i police yi ba léegi ñoom itamit nag ah, ñu ngi si fitna bu métti seen i diggante ka seen i ah, juddu réew yi daal seen i ah, ma civilians yi parce que nag si fan yi daal seen i nit ñi dañoo génnaat ci mbedda yi maanaam opposition bi dañoo génnaat ci mbedda yi di wane daal ànduñ ak président bi ci coppite nga xam ne koy def ci seen i mi pour nag mu gën a yàgg ci li di bopp réew mi mbokk yi Euh, DRC euh, mooy Democratic Republic of Congo ñooñu nag seen opposition bi nag ñoo oote daal si fukki fan juróom-ñaari ne dañuy génn def euh, protest parce que nag dafa am seen i doomi réew yi nga xam ne nag ñu leen rey mooy dañoo am pour nangu loola te opposition bi nag loolu ko ñaawlu mbokk yooyu ak yeneen xibaar dal si jamono su ko defee ñu ànd ak ci faram-fàcce gi mbokk yi dal leen su ko defee ñu tàmbali xibaar yi si réew mi rek ñu njëkkee ko ak police yi si talaata bi nag ñoom ñoo daal di bindee ab lettre lettre boo xam ne nag ci officiel ñoom ñoo jiitee trias jot na mouvement bi mooy kuréel ne dañoo jóg ne président bi daal day wàcc seen loxo daal dañ a jot parce que nag ñoom dañ ne si dimanche bi si fukki fan ak juróom-ñeente dañuy ci mbedda pour nag def seen doo xam ñatu oote président bi nag pour mu daal di wàcc ñu ànd ak ci report boobu ku jiite police fii ci biir réew mi di Mamour Diop daal na oolu ñi nga xamante nag ñooy mbootaayu tries jot na pour daal di leen jox am pataaxal bu wone ne du leen war a mën a jox ab pamit fii ci biir réew mi su ko defee ñi daal di def doxam ñaxtu bu gaay pare lii nag waral na tries jot na wax neen ne ñoom ñu jot pamit bi ñàkk jot pamit bi bu soobee yàlla ñoom dineen def li nga xamante nag mooy seen doxam ñaxtu booba pour rek wax président Adama Barrow mu daal di appale li nga xamante nag mooy lenge gi gannaaw bu ko digee askan bi ci atum 2016 di wax ne daal diiri ñetti at rek lay jiite li nga xamante nag mooy boppi nguur gi ñoom Tries jot na den dem foofu noonu ba Banjul pour jël li nga xamante nag mooy seen bataaxal boobaa buy wane ne ñoom duñ war a mun a def ab lii di doxam ñaxtu fii ci biir réew mi UN at ay ECOWAS fii ci biir réew mi nag oolu neen leen wax ak ñoom su ko defee ñu daal di war a mun a xam naka la ñuy def pour dalal seeni xel ak tamit nag mun leen a tere pour ñu daal di war a mun a def li nga xamante nag mooy doxam ñaxtu booba ndaxte nag police yi fu ñu ko tëddal rek mooy nit ñi askan ba ci boppam ñoo pare wut pour daal di mun a nekk ci jamono boo xam ne ay protest daf leen di war a mun a yàqal seen seeni soxla Daouda Thiam Star TV moo koy sant gërëm daaro caam si xibaar boobu su ko defee ñu dem seeta ji transport union bu Sénégal ci antenne bi nag ñoom ñoo daal di jam benn ah, benn client bi nekkoon ci biir li nekkoon ci biir boos bi yëpp ah, bettu si waaye tamit am li leen naqari si jëf boobu nga xam ne nag transport union bu Sénégal def ñu ne boos bi nag jublu woon foofu la ca li di Dakar Sénégal di ay nit moom mooy ay client yi nga xam ne moom la yóbboon waaye nag boos bi nag dañ ko mujjee delluwaat fii ci bureau Gambia tamit euh, seen i yi ñoo ko fexe nañ waxtaan si pour nag bàyyi boos mu jàll waaye union bu Sénégal dañoo bañ ne loolu naka dafay daaneel seen i bi ñu ànd ak Seydou Camara si report bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di standard newspaper benn boos ci boos yi nga xamante rek GTS yi ñoo ko moom fii ci biir réew mi. dañ ko nag kal ci yoon bi ci biir réewu senegal daal di ko jam ay xeer ba mu am benn Gambien passenger bi nga xamante ne jëlee na ci ab gaañu gaañu. yëngatu boo xam ne am na bu jógee si waa côté Kaarang xam nañ ne ñi si bokkoon yëpp ñi ko ñi ko yëngal mooy waa chef de garas Karang ba nga xam ne si amak ak dem ñëw bi dem ñëw bi jam nañ ay xeer ba benn si suñ passagé am na si ay métit ñi def ñaawteef booba nag bokk nañ ci mbootaay bi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb dawalkati oto yi ci biir réewu Sénégal mu di seen union bi boos bi nag bàyyeekoo na réewu Gambia jubali yoonam nag pour dugg ci biir réewu senegal waaye ci yoon wi nag ñenn ñu bokk ci mbootaay boobu di unionu Sénégal bi dañ koo kal ne du dugg ci biir réew mi li ko waral mooy mu ngi yàq seen business bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàllu dem ak dikk bi. parce que ñun suñ boos suñ dépôt laa jógee Kanifing ñu jël passagers fees na feesul suñ waxtu su jotee dañoo départ dem suñ départee fii du ñuy jël passagers fenn. duñ jël euh, passage si ferry bi duñ jël passage Essew duñ jël am Amdalaay duñ jël passage Karang duñ jël passage Kaolack fenn parce que pour ñoom économiquement mu ngi leen affecté ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ak Karang di dawal waaye tamit ñoom tam dañ bëgg a def tamit suñ ñu ko arrêté ñun tamit économiquement ñun tamit daf ñoo affecté. donte nag am na ay police officer ak custom officers ak ñenn ñu féete ci wàllu kaaraange bi ci biir réewu Sénégal ñëw nañ pour waxtaanee mbir mi nag pour ñu bàyyi boos bi mu dem waaye ñoom yu union yi si daal. dañoo bañ loolu ne boos bi du dem mujjanteel bi nag boos bi dafa am pour bàyyi réewu Sénégal dellu si waat ci biir réewu Gambia yéenekaay bi di standard newspaper nag bu ñu woowee GTSC seeni managing director bi mu di Sidi Kani waaye liñ ñu wax rek mooy ne rek liñ si jàngee rek mooy ne ñoom dañ nekk di ñàkk a marché dañ nekk di ñàkk marché dañ ñu ne ñu ne nu ñoo ñàkkee marché mooy ne ñun suñ benn boos su feesee mu leen a manqué ñoom euh, seven sept place waaye ñun li ñu leen wax mooy ne def leen li ñoo def ngeen jox customer bi choice parce que ñun ñëwuñ yéen seen territoire ñun suñ territoire lañ ñëw nit ñi ñoo ñu fekk si suñ territoire territoire ne yéen lañ bëgg a demal ñu dem ak ñum wiral na xibaar bi leen di xamle ne nag lii nga xamante ne Sénégal seen unionist bi def nañ ko loola nag dafa yàq sarta luwaay yi nga xamante ne moom moo dox ci diggante réewu Sénégal ak réewu Gambia waaye tamit luwaa bi nga xamante ne moom la ECOWAS tëral ci diggante réew yi bokk ci mbootaay boobu mu continuer ay kàddoom di xam ne ne am na nangutoo bu dox ci diggante réewu Gambia ak réewu Sénégal ci ñaari nguur yi buy wonee nag bés bu nekk ñaari boos mun naa bàyyeekoo ci biir réewu Gambie dem ci réewu Sénégal ci capital bi di Dakar waaye tamit ñaari boos mun naa bàyyeekoo ci réewu Sénégal ñëw ci capital bu réewu Gambie mu di Banjul muy xam ne tamit ci atum 2018 ñaari jëwriñ yiñ dënk lu jëm ci wàllu dem ak dikk bi ci réewu Sénégal ak réewu Gambia moo di ministers of transport am nañ nangutoo xaatim ko di wane nag lu toll ci téeméer juróom fukki oto nag mun nañoo bàyyeekoo ci biir réewu Sénégal bés bu nekk ñëw dugg ci ci biir réewu Gambia. waaye Gambia tamit téeméeri oto mun naa bàyyeekoo fii ci biir réew mi dugg ci biir réewu Sénégal loolu nag oto yi nekk ci ron nguur gi bokkuñu si mu ne waaye sax ECOWAS mu di ab mbootaay bi nga xamante ne ñoom ñoo ëmb réew yu bokk ci lii di tund bile ñoom tamit am na luwaay yi nga xamante ne tëral nañ ko buy wane ne nit ki nag dafa war a moom boppam ci dem fu neex moom ak i bagaasam te du si am benn jafe-jafe mu ne luwaa booba tamit ñii lu ñu def ci biir réewu Sénégal bokk ci yu yoon bi jalgati nañ luwaa boobu mu ne niki semaine bi ñu weesu nag am na seen boos bi nga xamante ne rek demoon na ci biir réewu Sénégal ci jamono ju nguuru Gambie bi waxee ne am na nangutoo bu dox seen diggante nguuru Sénégal bi pour ñaari boos ñu bàyyeekoo ci réew yi dem ci réew yi loolu nag buñ ko defee boos boobu dafa am jafe-jafe ci yoon wi mujjeenteel bi ñu waxtaanee mbir mi ba ki nga xamante rek moom moo nekk Sénégal seen high commissioner bi moom moo ci dugal làmmiñam ñu bàyyi boos bi mu continuer waaye ni ki altine nag boos bu dem dugg ci biir réewu Sénégal boos boobu dañ ko mujjee kal ñu waxtaanee mbir mi waaye nag mbir mi mujjee wuta saafarawu ñu daal di jam boos bi am ku si jëlee gaañu gaañu ñi nekkoon ci boos bi nag xejamal nañ lu jëm seen wàllu kaaraange buñ sukkandekoo ci kàddu yu bàyyeekoo ci Mr Kandji Mr yi nag mu tënk ay kàddoom di xamle ne lii nga xamante ne ñu bokk ci union bi ci réewu Sénégal def nañ ko lii nag lim firndeel mooy benn réew di not beneen réew mu ne ñaari réew yépp dañoo war a ràññee indépendance bi nga xamante ne rek am nañ ko ak tamit moom bi nga xamante ne moom lañ moom seeni bopp Seydou Camara Star TV News ndox yi su ko defee ñu jàll rek dem seeti ji leneen dinañ dem seeti ji euh, youth wing bu Gambia Moral Congress maanaam parti bu euh, moom kii di Ahmed Mai Fatty Euh, parti boobu nga xam ne nag mu ngi koo jiite ci réew mi nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ndaw yi nag si lii di parti booba mooy seen yudu bi euh, dàqalu ne yéen a kàddu yi nga xam ne nag Mbacke Fati wax na ko Mbacke Fati nag ay fan ci ginnaaw wane woon na ne tekki na am ndombal tànkam ci parti bi parce que nag moom kilifa la nag ci parti boobu waaye tamit ci kaw loolu ba muy génn andi na yóbbaale na ay junne junne nit ñi nga xam ne nag ñoom la andiwaale woon nag ci lii di parti booba waaye nag parti bi lay génn si ne di dàqalu kàddu yi nga xam ne nag war na ko di wane ne moom jarul dara si parti bi waaye tamit ba muy ñëw andiwaale wut kenn te bu muy dem yóbbuwaale wut kenn amul dara li nga xam ne nag yokk na ko ci lii di parti booba ñu ànd ak may mën a Diouf si boobu. kii di Mbàkke moom nag xamal na media bi ne moom dafa génn ci parti bi nga xam ne nag moom lañ ooyee GMC di di parti bi nga xam ne nag kii di honorable may Ahmed Fatty moom moo ko sos kii di Mbàkke xamal na ñu ne léegi nag fi mu nekk nii mu ngi NPP mu nekk parti bu es bu président Adama Barrow niki démb rek gannaaw bu standard ñu si ba doon waxee ak ñi nga xam ne nag ñooy waa GMC youth wing bi gaay xamal nañ ñu ne kii di Mbacke Faty bokkutoon si executive member yi comme ni mu ko daan waxee ne si executive member yi la bokkoon ñu ne nag Mbacke Faty mi bokkut ak ki nga xam ne nag mooy honorable Ahmed Faty comme ni mu ko doon waxee ndax daf doon wax ne moom dafa bokk ak ki nga xam ne nag mooy honorable Ahmed Faty te nag moom dafa bokkoon ci ñi nga xam ne nag ñooy executive members yi bu bi le di euh, GMC. waa GMC Youth Wing bi xamal na ñu ne Mbacke Fati moom la nekkutoon kenn ci parti bi tey nag ci fekkee ne rek euh, dañooy wax ci parti bi moom nekkutoon ki nga xam ne saf na xorom ci li nga xam ne nekk mooy a euh, parti bile tey nag ci wàllum position moom kii di Mbacke amutoon benn position ci parti bi ndax joxuñ ko woon benn position bi nga xam ne nag dañ ko ko jagleloon rek pour mu yore ko ñu ne moom Mbacke moom wax na ne dafa am thousand supporters ñu jóge fi nga xam ne nag mooy dëkk bu ñuy ooyee ñaani waaye nag gannaaw bu mu waxee ne am na supporters yooyu noonu foofu si ñaani ba léegi nag moom Mbacke musuta andi kenn ci parti bi tey nag wax na ne am na ay thousand supporters ñu ne nag loolu moo leen jaaxal lool ñu ne moom Mbàkke dafa bëgg a wax lu ko neex rek waaye lu mooy wax yépp xam nañ ne tegu si yoon ndax ki nga xam ne nekk mooy Mbàkke deful dara ci parti GMC te yorul dara foofu noonu su fekkee nekk dara ja rek moom andiwul dara ci li nga xam ne nekk moom mooy GMC moo tax it nag su naree dem ci ci parti ki nga xam ne nekk mooy président Barrow di NPP loolu dina nekk li nga xam ne dina leen neex ndax nag ki nga xam ne mooy mbaake amul benn solo ci parti GMC ñu ne depuis bu mu amee li nga xam ne nag mooy membership card bi te depuis bu mu ko amee ba léegi mu ngi am si benn at moom Mbacke kenn nit rek la ñëwandoor ci li nga xam ne nekk moom mooy parti bile. te ci biir parti bi moom Mbacke waa GMC musuñ koo jox lépp su fekkee ne liggéey am na gars yi musuñ koo jox liggéey tey nag su fekkee ci wàllum contribution maanaam sotti ci xalaat duñ ko dee jox pour mu sotti xalaatam ci li nga xam ne nag mooy parti bi. mu ne nag su fekkee ne dañuy wax dëgg rek ñu bari xamuñ ne ki nga xam ne nag moom mooy Mbàkke sax dafa am membership card ci parti bi nga xam ne nag moom mooy GMC. ki nga xam ne nag moom mooy Baboucarr Jaiteh mu nekk acting youth bi moom nag xamal nañu ne Mbàkke daal wax na ne moom dafa bon ci executive member bi bala muy génn ci parti bi nga xam ne nag moom mooy GMC waaye moom mu ngi xamal nit ne Mbàkke daal amee amewutoon benn position ci li nga xam ne nag moom mooy GMC a Diouf Star TV. mbokk yi sant gërëm Maimouna Diouf su ko defee ñu dem seeta ji wàllu tàggat yaram ndax nag Gambia international moom kii di euh, Moussa Baro moom nag wane ne daal jamono ji ñuy wax ak yéen nag euh, jeexal euh, toxu bi nga xam ne nag mu ngi koy def si diggante ñaari club mooy diggante euh, ñoom ñi di Atlanta ak ñi di Bologna ndax moom Moussa Baro nag ñu ne ñeenti at nag def na ko foofu si Atlanta di fa play football di fa defee di di tàggat yaram waaye nag fu mu toll nii na léegi nag dina am ñeenti ati contrat yi nga xam ne daf koy xaatim digganteem ak ñi di Bologna moom kii niki démba caméra nag wane woon nañ ko ba muy jël nataal nag ak li di clubam bu bees bi di wane daal léegi dafay tàmbaliwaat liggéey ci beneen club bi nga xam ne moom moo nekk kule Charoli di uh, Italy. Nienda Saidu Kamara jiit bu xareñ bi di musa Baro mu di striker bi nga xamante ne mu ngi teewal Gambian national team bi dina jeexal transfert bi mu war a def ci diggante Atlanta ak na ci jamono ji nga xamante ne rek daa dina àgg ci càppaandaw gi gëstu yi ñu doon def ci wàllu wér yarama yaramam foofale ca Bologna pour nangutoo am diggante Atlanta ak Bologna la ca saria A bi ci biir réewu itali Moussa Baro mi nga xamante ne mu ngi tàmbalee football fii ci biir réew mi ci football club bi la di Hawks moom nag bu mu doon ab tout tànk la bàyyi réew mi dem ci biir réewu itali di pléyal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Atlanta ci seen tiim ndaw bi nag foofu la tàmbalee nangutoo bi nag buñ ko xaatimee dañuy gis ne moom Moussa Baro nag dina nekk ci club boobu di Bologna lu toll ci fukki weer ak juróom waaye tamit ci atum 2021 ñi nga xamante ne ñoo nekk bloc na dinañ fay Atlanta lu toll ci 19 millions fukk ak juróom-ñeenti ci kopparu euros pour mu doon seeni player ñu gën koo ràññee ci Printo moom nag wone na ab jalooreem ci wàllu tàggat yaram bi la di football tàmbalee ko nag ci biir réew mi ci football club bile di Hawks FC ci atum 2016 ci la bàyyi réew mi dem ci biir réewu Italie pléyal ñii di Atlanta waaye nag indi nañ ko ci tiim bu mag bi gannaaw bu mu amee fukki at ak juróom-ñett ci atum 2018 ki nga xamante ne rek moom moo nekk GFF président bi moo di Lamin Kaba baajo moom na wane na mbégteem ak kontaanteem ci jamono ji nga xamante ne Moussa Baro bàyyi na Atlanta war a dem foofule ci bili di bloc na wane ne nag Moussa Baro foofule ca bloc na nag la muy gën a amee playing time maanaam ñooñu ñoo koy gën a jëfandikoo ci italien Serie A bi bloc na nag ñu ngi 13 place ci italien Serie A bi. moom président bi di Lamin kabaa Bajo muy wane ne Moussa Baro nag xeexkat la ndaxte lii def ko liggéey Gambia tamit mu ngi continuer di liggéeyal national team bi ndaxte ñu ngi ku bal bii nga xamante ne dugalaloon na ko Gambia ci seen digganteeg Morocco foofale ca Marrakech bal booba nag nekk na bal boo xamante ne ni saa su ne Gambien si dañ koy fàttale ko kii di Moussa Baro mu ne jamono jii nag Moussa Baro war a bàyyi ko Atlanta dem foofu ca bloc na mu ne loolu yokkute lay doon ndaxte Moussa Baro dina gën a am playing time ca Italian Serie A bi Seydou Camara Star TV News. mbokk yi sant ak gërëm Seydou Camara si mujjantale xibaar boobu si réew mi rek su ko defee ñu jàll dem seet ji xibaaru biti réew yi fañ koy tàmbalee rek mooy ci réew li di Mozambique ndax foofu la ca Mozambique daanaka. ane am na kilifa yi réew yu bëri nga xam ne nag teewoon nañ foofu ci bi ñuy nag inauguré moom kii di Maputo daal di koy def nag président bu di euh, Mozambique Euh, président Philippe Nyusi nag moom la gars yi daal di euh, waatal mu nekk nag euh, ñaareeli mandat bi nga xam ne nag moom la mooy jiitali di réew Mozambique si àllarba bi nga xam ne nag weesu na Mozambique nag ñu ne at yu wees yëpp nag ñu ngi ngi woon nag si fitna yu métti ndaxte nag ñu ne am na nag yëfi terroriste yu bëri bëri nga xam ne nag am na nag ci réew mooma ñu si nag dafa dellu amaan ndam nag ci élection si nga xam nag weesu na ci weeru octobre daanaka boo xoolee carte yi bu dee téeméer la juróom-ñaari fukka ak ñett tey moom moo ko daal di jël opposition bi ne dëgg-dëgg am na njuuj njaaj yi nga xam ne am na ci lii di élection ci yooyu waaye nag ginnaaw loolu am na président si bëri nga xam ne nag teewoon nañ foofa ndaxte nag ñu ne président bu Portugal ah, ñi nga xam ne nag ñoom ah, ñoom ñoo colonisation nag ah, Mozambique waaye ginnaaw kooku itamit am na na président si nga xam ne teewoon nañ foofa bokk na si naa di Cyril Ramaphosa South Africa seen i président bi ak itamit nag Emmerson Mnangagwa bu Zimbabwe président mu ni Edgar Lungu bu Zambia ak itamit nag João bu Angola Eh, Sikandi VP bu Uganda ak itamit président bu Botswana moom ki di Masisi wane nañ yëpp woon nañ ci bi ñoo égrégri nga xam ne nag moom mooy eh, moom ki si mandaam bu njëkk bi daal ñu ne bokk na si ndam a mag bi nga xam ñu ne loolu mujjewut fenn parce que nag loolu ah, fitna rek la ah, mujjewoon te am na ñu bari nga xam kontaan woon nag li nga xam ne moom mooy li di nangutoo booba lu ëpp nag fukki yoon ak juróom nag daanu nañ si kaw nit ñi foofu la ca li di Mozambique ah, ñeneen ni nag si biir oto lañ faral di nekk nag ñuy daanu seen kaw nag leen attaque ci loolu nag wane ne faat nit ak benn ñoo xam ne nag wane ne ñu ne nag ñu si nguuram mi bokk si ñi nga ne nag ñoom ñoo dee faral di def lii di attaque ah, lu si ñetti téeméeri nit nag ñoom ñoo ñàkk seen bakkan te ñetti téeméeri am na ba leen di rey daal dañoo dog seen bopp yi te loolu nag dañ ko naqarlu bu baax a baax te bu buñ tàmbalee seen attaque si atum 2017 ci di dëkk booba waaye nag ñu ngi sentu ne Euh, bi yoon daal gannaaw bu ñu ko tànnee daal dina am ab coppite nga am dina ko def ci wàllu euh, nangutoo yooyu nga xam ne nag amoon na ko ak lii di opposition bi mbokk yi suñu fa bàyyi ko ñu dem seeti ji fan yi tamit jàmmarloo bi nga xam ne mu ngi am foofule ca réew di euh, Guinée fi nga xam ne nag moom it Alpha Condé président Alpha Condé

gëstoo nag ñu ne taalibe la maanaam student la ko xam ne dañ ko rey si talaata bi nijaayam nag benn docteur ñoom ñoo daal di leeral loola <clears throat> Jane Tamba Tongino moom opposition voice la maanaam moom it aussi opposition bi la daal di bokk mu ne eh, nga xam ne nag am foofu di waaj di saa yu def nekk di def seen i boppa ndaxte ne ci mbedd def seen démonstration def daal tax na ba léegi daal Guinée depuis atum 2019 eh, weeru am na ñu bëri nga xam ne nag ñàkk nañ seen i li eh, li yëpp li ko waral mooy ne Alpha moom dafa mel ni lu mu fas yéene nag moom ne ñoom ñoo ngi ne démocratie nag kenn du ko caaxaane parce que ñoom nekkuñ dañoo àndut ak Alpha Condé waaye dañoo àndut ak li nga xam ne nag moom mooy coppite moo tax daal ñu ne depuis dooree euh, seen protest yi nag depuis daaw ba ren daal daanaka lu ëpp ñaar fukki nit ñoom ñoo ñàkk seen i nag ci génn bi nga xam ne ñu ngi koy génn ci mbedd euh, di wane seen naxar moo koy suñu mujjantale xibaar rek ñu dem seeti ji former presidential candidate moo naka moom mooy oote doo xam ñattu nag si fukki fan juróom-ñaari ci weeru janvier bi ñu bi eh, ci capital bu lii di eh, Congo nag di Kinshasa pour nag ñu mun a fàttaliku delloo njukkal eh, seeni doomu bi pour maanaam député la woon jamono yu fayulu doon koo xam ne ñu ne ku yor baat la nag foofule ca réew li di Congo ñu ne nag moom moo wane daal Eh, eh, moom dafa amoon ndam eh, bokk na si ki nga dafa amoon ndam ci élection yi nga xam ne ko ci wéru décembre waaye nag nam loolu ñu ne dañ ko mujjoon a nangu ci loxoom parce que nag ñu ne dafa am junjaay nga xam ne def nañ ko si élection di jël ndam ci fukki fan ak juróom ñu dox ci mbedda yi su defee nag ñu delloo njukkal ñoo xam ne ñoom la gars ñu mun a fàttaliku gars yi parce que ñooñu nag seen i mbokk leen seen euh, euh, mag leen nag foofu la ca lii di Bénin ak bépp dëkk bi nekk foofu la ca lii di euh, Bénin mu ne nag lu ëpp téeméer ak ñi di Uganda depuis wérum wérum juróomi fan wane daal ci report bi nga xam ne tënk nañ ko lu ëpp nag téeméer la fa gaay rey ba tax nag ne mission bi mooy United Nations seen mission bi nekk foofu la ca lii di Congo ñu ne ñoom daal am na ñaar yoo xam ne nag moom moo leen mooy doomu réew yi beneen bi nag mooy pour fexe ba gis ne daal seen i buntu liggéeykaay daal dinañ dalal gars yi waaye nag ñu ne ñaar yooyu yëpp nekkuñ di def nekkuñ tamit di sàmmal nga xam ne moom mooy seen doomu réew taw daal ba léegi problème bi daan am foofu la sa dëkk boobu ba nag mu ngi continuer moom moo tax daal ñoom dañuy génn si mbedd nag daal wane seen naqar moo loolu moo nekkoon sunu mujjandeel xibaar man Omar Tunkara maa leen ko doon Menga moom moo nekk ci euh, caméra bi mbokk yi euh, moom ki di Mr moom moo nekk ci machine bi Paul Steven Pereira moo teewal xibaar yi jërë ngeen jëf wasalaam.